billahi min alsheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim salaam la famille maa ngi siyaar tey amuñu jotu teg euh, générique donc biento juma bi des na les treize heures et donc deux heures et quart la ñu war a julli incha allah donc dafa yéen live bu ndaw rek wax sunu mettit waaw comme niñ koy xamee rek ci kalifan Sall rien que la vérité dëgg rek te yàlla tax waaw comme ni ñu koy waxee rek Sénégal gi sunu Sénégal la du Sénégalu baayu kenn du Sénégalu ndeyu kenn Sénégal de pour tous les Sénégalais waaw sunu maam yi dañ see xeex sunu papa xeex si reyante si ba ñu am sunu indépendance waaw ñiy fal sunu ay njiit faluñu leen ko nag parce que ñoom moom réew mi déedéet dañ leen ko fal pour ñuy war a mën a doxal réew mi waaw ñiy gérer police gérer police ñiy gérer santé gérer santé ñiy gérer sécurité gérer sécurité ñiy gérer am-am bi gérer am-am bi ñiy gérer dund bi gérer dund bi ku ne war a mën a gis sa bopp ci biir Sénégal waaw moo tax ñu fal président de la république président de la république fal ay ministre am tabaxal ay gouvernement wam mais nag faluñu leen pour ngeen jàpp ne que Sénégal c'est pour vous non Sénégal ne vous appartient pas waaw ah, ça nous appartient nous tous waaw dama yeewu gis lu yéeme lu doy waar lu yàgg di am ci sama réew ci Sénégal ci Afrique waaw moo tax ñun fi ak deux cents ans du ñu mel ni France du ñu mel ni Maroc du ñu mel ni ah, excusez-moi Maroc sax mu ngi ci biir Afrique du ñu mel ni Amérique du ñu mel ni Angleterre du ñu mel ni yeneen dëkk yi parce que souvent ay baadoola dañ ñuy jiite ay doomu xaram sax laa mën a wax dañ ñuy jiite parce que naka ngay mën a jàppee ay nit nekk ci benn réew boo xamante ni mën naa ne c'est 17 millions d'habitants ñu si bëri danoo xiif ñii bu ñu ndëkkee du ñu añ ñii bu ñu añee du ñu reer ñu bëgg jàppee nit ñi di leen foowee nan lañ leen di foowee mooy naka lañuy ñuy fale benn ministre wala benn directeur bu ñu ñëwee votel ko budget xaalis ay milliards pour lan pour mu taxawu askan wi bu ñu ñëwee ministre boobu wala directeur boobu bu doxalee un an deux ans bu ñu ñëwee ñu dégg luubal na un milliard wala luubal na deux milliards te à la fin finish duñ leen tëj ci kaso gi vraiment trop c'est trop trop c'est trop sénégalais yi ñu ngi jooy parce que lii taxul tamit ñu fal nguur waa bu doon loolu la bu nguur am nañ def mën sa morom duma laa loo lambe lambi golo waaw ku mën a sàcc sàcc ku mën a rey rey ku mën a dóor dóori mais bu ñu demee ba taxawal gouvernement c'est pour ñuy saytu sàcc yi ñu leen di tëj détourneur de alalu askan wi ñu leen di tëj jaaykatu boone ñu leen di tëj drogué yi ñu leen di tëj violeurs yi ñu leen di tëj ainsi de suite mais dañuy gis nag àdduna di continuer di dox ci Sénégal ñu gis yenn doomu xaraam di enrichir ci sunu ndodd ñun baadoole bi ñun askan wi te nag ku wax ñu ne la waroo wax dañuy wax ba yowmal xiyaam nag dañuy wax ba yowmal xiyaam bàyyu kenn moomul gafaga réew mi alalu réew mi wàccul ci kaw asamaan si ñëw dugg seeni ay poos alalu réew mi amul kenn ku baayam gas teen jël moo nin dugal ko déedéet tey jii ku ci enrichir sunu ndodd la enrichir parce que jaaykatu gerte caaf bi sax dañ koy fayeeku juuti xaalis boobu dem trésor public moo moonin boobu tey la ñu waroon service Sénégal au moment où président de la République ñu fal ko 2012 ba léegi noppaleekuwul tëddul dalluwul lépp rek mu ngi bëgg un Sénégal meilleur mu ngi bëgg Sénégal bu émerger mais am ay doomu xaraam yoo xam ne ñu ngi su nguur gi sàcc fen lëbëj loolu moo fi war a jeex loolu moo fi war a jeex fii ku fi sàcc dafa war a wuyu ay aktam mënuñu dégg ay cour de comptes wala ay nag di épingler ay ministre wala ay directeur depuis ay ati at gisuñu fi benn directeur bu dem 100 mètres gisuñu fi benn ministre bu dem 100 loolu du dëgg du yoon 100 bi boo fa demee ay nit yoo xam ne dañu bëgg ngénte amuñu lu ñu jëndee xar amuñu lu ñu jëndee xar ñu dem daral sàcc xar bu fukki junni ñu tëj leen deux ans ay nit yu dugg ci kër sàcc tele pour am lu ñu lekk ñu tëj leen cinq ans jamono jooju benn ministre détourné ay milliards askan wi muy dox gundaandaat nu ko neexee ci dëkk bi tabax immeuble am yore ay kat-katam ànd ak caga di dem fu ko neex loolu dafa war a jeex ci biir Sénégal il faut nag ngeen dégg ko mu dugg seeni ay nopp ñun lu dul yàlla sunu borom gëmuñu ko ku dul yàlla it nekku fi yàlla sunu borom la ñu gëm moom la ñu àndal moom la ñuy topp nguur bu ne day jeex nguuru sunu borom rek moo dul jeex nañuy ànd si dëgg tey wax dëgg ñu bëri dañoo entouré président de la république mais dañu koy dugal si kamb ci pax bu bon te président mérité wul loolu soxna mérité wul loolu président ku ko xam-xam ne mu ngi jéem lu mu mën pour coono askan wi jeex soxnaam si mu ngi jéem lu mu mën pour coono askan wi jeex mais ay kayma ay mbaam xuux ay doomu xaram nekk ci réew mi di sàcc alal réew mi di enrichir seen doom yi ñu yóbbu leen bitim réew yore ay 4 x yu jar cinquante de million caga ji ñu yóbbu di bàyyi ak Qatar ñun askan wi nga xam ne ñoo tax ñu toog tey au pouvoir ñun ñuy tàmbaambaalu dëgg bi nag boo ko waxee ñu ne la da nga réew patati patata bu dee wax dëgg mooy da ngaa réew ñoo tey réew. bu dee wax dëgg moo tax ñu ne dañoo xamadi ñoo tey xamadi te lii lancement bi la film bi mu ngi ñëw ñun dañuy wax de si réew mi lañu dëkk ndeyu kenn moomul réew mi baayu kenn moomul réew mi ñun on est des citoyens sénégalais et danoo jekk pour wax si sunu Sénégal duñu xaar guinéens yi di ñëw di ñu wax loo duñu xaar gambiens yi di ñëw di wax ñu xaar ivoiriens yi di ñëw di wax ñun bu ñu gisee méttit sunu biir réew ñun doomu réew mi bu nu waxul xaw ma kan mooy wax xaw ma kan mooy wax il est temps nag ñu wax parce que nag caaxaan bi mu ngi bëgg a bëri munoo toog ñu jël fal lu toll ni of na président de la république defar ko jox leen ay matuwaay yu am doole jox leen alal pour ñuy saytu ñi nga xamante ni ñu ngi foowee alal réew mi ñuy jël xaw ma ARMPT la tudd xaw ma lan ak lan pour ñuy saytu ñiy jël alalu réew mi ñooñu ñëpp bu ñu defee enquête ñu gis ko si journaux yi bañ nañ ko ba ci Covid 19 Covid. ñëpp yaakaaroon ni àdduna bi day tukki ay junni junni nit dee nit ñi sonn ñëpp tiit président de la république ñëw ne génne na presque mille milliards pour ñëw jàppale askan wi yenn citoyen sénégalais jël seen alal ne dañuy jàppale askan wu sonn bi jamono jooju yenn mbaam xuux ñu ngi jël alal gi nga xam ne président nee na na jëm si askan wi ñoom ñu ngi koy jël di ko dugal seeni ay gafaka di ngandal ay étage di ngandal ay 4x4 di ngandal ay costume di ngandal ay koll topp caga gi ñu ne xool loolu moo fi jeex sàcc gi la bëgg mu freiné mu taxaw pour bu ñu bëggee un Sénégal meilleur bu ñu bëggee un Sénégal meilleur faaw ñuy wax dëgg te yàlla tax bu président Macky Sall liggéey ñu ne président Macky Sall liggéey kat nga jëf bu ñu gisee ay directeur am wala yenn si ay ministre am di def naka sudul noonu ñu oser ñeme taxaw jàkkaarloog ñoom ne leen ay mbaam ngeen yéen sàcc yi ñu def le tout nag pour président Macky Sall mën a tàggoog ñoom parce que président Macky Sall ba muy tàgg ministre yooyu ba muy tàgg euh, euh, euh, ba muy tànn ministre yooyu di tànn directeur yooyu c'était pour ñu taxaw askan wi mais jëluñu leen tey pour ñuy euh, sonal askan wi di di di luubal alalu askan wi fu leen neex ñu am kër fu leen neex ñu am ay ay ferme de poulailler fu leen neex ñu am ay hectares ay tool jamono jooju sunu maam yi nga xam ne euh, bu dëkk bi taxawee tey ñoom la amuñu sax euh, vingt centimètres si si biir Sénégal trop c'est trop ndaw ñi ñu ngi gën a bëri ci réew mi. ndaw boo si gis mu ngi xëy pour lu mu dang-dangi pour jox papaam ak yaayam lu mu lekk ndaw ñooñu tey ñooy mën a judd nar a retraité amuñ si lu nu téye amuñu si lu nu téye ndax moo nin bu ñu jox yenn directeurs yi yenn ministres yi pour ñu mën a financer ndaw ñu liggéey ñu financer ko seen bopp ñoom ñu financer ko seeni ndey ñoom ñu financer ko seeni baay ñoom ñu financer ko seeni askan ñoom ñu bàyyi askanu Sénégal te xaalis boobu du seen wax alalu ndey du seen alalu baay trop c'est trop te dinañu wax man ku may tere wax amut ci réew mi ku may tere wax amut xanaa nga dóor ma bal ma dee ñu suuli nji ma dootuma wax mais du ay tëj kaso du ay xoqatal du ay yu ñàkk fayda mooy tax Kaliphone bu bëggee wax du wax déedéet man damay wax kaso bi tabaxuñ ko pour ginaar yi tabaxuñ ko pour gëlëm bi mësoo dégg nit tëdd na kaso ba génn na amee na sidaa mësoo dégg nit tëdd na kaso ba génn na amee na kanam bu néewi buñ la tëjee da nga koy tëddi boo génnee génn et yowmal xiyaam ëllëg ñii di la tëj ci kaso bi ci ay fen yowmal xiyaam du ñu tëdd ci kaso gi dañ leen di boyal taal leen ñu laq leen jëppit donc nag il est temps ñu jël sunu destin en mais ñu wax dëgg te yàlla tax ñi nga xamante ni épinglé nañ leen ñu gis ko ci réseaux sociaux yu ñooñu nañu jël de un bu dee directeur lu mënti doon ñu démissionné ñu mën a féexal président Macky Sall mu continuer liggéeyam bu ko defee justice def liggéeyam ñu daal di leen tëj ci kaso bi te tëj bi dafa yomb buñ leen tëjee it nañu remboursé alalu askan wi ñu sàcc parce que du benn du ñaar du ñett du ñeent depuis Senghor ba léegi ñu ngi dégg ay minis ay directeur yuy luubal alalu askan wi à la fin du mujj fen te bés bu ne ñu dégg à la une ci presse bi waa ji sàcc na xar tëj nañ ko ci kaso gi loolu war na jeex loolu war na jeex message bu ndaw la woon naqar bu nekk sama biir xol te man lu nekk sama biir xol damay génn wax ko ku gis ne damaa xamati sa problème la ku gis ne damaa changé sa problème la man xooluma luy neex nit loo xam ne bu ma ko waxee bu ma tëddee nelaw ak di seede dëgg si laay dox doxumay daraay naafequ nit ku yor sa cent franc bëgg ko jox kalifon Kaliphone li mu wax déranger na la teel sa cent franc am yàlla yàlla yàlla ñàkk yàlla ñaa yàlla yàlla trop c'est trop askan wi sonn nanu askan wi maar nanu si toog di dëgg ay luubal ay centaine de milliards ay luubal ay centaine de yu kenn xamut et puis ñu ne nit ñi duñ ko wax kan ngeen fi gën ndey kan ngeen fi gën baay man mbindeef gënu ma ndey ci biir Sénégal mbindeef gënu ma baay ci biir senegal te kenn ëpp ma it daraja ci biir réew mi ku gëmul sa bopp nag sa problème la mais man damay gëm ne man Kaliphone Sall juddoo fii si réew mi am ndey am baay ba ñu génn àdduna bu ma sentiree lu ma war a mën a wax sama biir réew dama koy waxte dund du ma ko waxte dee toll nañ nag jamono joo xam ne boo waxee ñuy fay yenn nit pour ñu lay wax un wala di la wax deux wala di la jéem a manigancé wala ku am lay wax bul toog ci groupe whatsapp di jëw ku am lay wax taalal sa facebook jàkkaarloo kalifan bu ma amee temps pour tontu la tontu la encore une fois tontu bi du ma tontu benn kaña aw ma jot bi kaña yi ñuy jox t-shirt ak kaña yi ñuy jox sandwich ñuy génn pour naan dañuy wax ci Kaliphone bu leen xaar Kaliphone di wax ci yéen awma seen temps te du ma mës a am seen jot sénégalais laa lu ma sentir mu métti ma sama biir Sénégal dama koy wax fii kenn moomut kenn te nguur yépp ay jeex te ñaan nañu suñu borom it jour ñëw ñu naan nguuru diw jaaroon na fi kon nay nice nay rafet mun nañu toog nguur goo xam ne chaque jour ñu ngi dégg ay détournement chaque jour ñu ngi dégg ay milliards chaque jour ñu ngi dégg ay millions mais ba kañ ba kañ loolu taxul ñu fal nguur bu ñu demee ba toll foofu nag ba boo ñu tas nguur ku bëgg sàcc sàcc ku bëgg terrain euh, sàcc di ko sàcc ku bëgg rey nit nga rey ainsi suite bu ñu demee ba taxawal institution taxawal nguur c'est pour ñu respecter askan bi c'est pour ñu respecter institution bi kenn warul nekk de dessus de la loi bu Kaliphone defee ñu tëj ko ci kaso bi bu ku ëpp yax Kaliphone comme ni ngeen di koy waxee man kenn ëpp ma yax mais comme nañuy naan ay borom dara ak yu kenn xawut fii looloo fi jeex ay borom daraja fii y a borom daraja y a borom dara ay borom costume ngeen ñun ñuy doon ay boromu t-shirt kat gëm suñu bopp nag dëkk ci banlieue bi du ñu dunguru kenn du ñu maral kenn taatam pour muy clair pour ngeen dégg ko mu dugg seen biir ay nopp bu ngeen ko fayit fii fay ko yowmal xiyam parce que nag trop c'est trop mënuñu toog askan wi nekk si jafe-jafe bu doon sax xaalis bi ngeen sàcc da ngeen di dem souvent hôpital CTO fekk fa sénégalais yi sonn yi ngeen fayal leen seeni ay ordonnance wala jël leen en charge à la rigueur bu doon xaalis bi ngeen di sàcc da ngeen di ñëw ci banlieue bi bu mbënd bi ñëwee ngeen jëndal nit ñi ay groupe électrogène ak taxawu leen à la rigueur mais xaalis bi ngeen di sàcc ay immeuble ay huit huit ay quatre quatre non loolu dafay jeex loolu dafay jeex sunu réew nag dañu koy jël nag tee ko si ay loxoy set huit nu président mag Sall woote woon ne yoonu yokkute 2012 ba 2022 bii ñu ngi gis Sénégal mu ngi émerger ku bëgg ànd ak moom si loolu si loxoy set si nga liggéey à la mais du ñu nangu ay sàcc ñëw nekk si nguur gi. di sàcc alalu askan wi ñu naan nañu noppi ñun du ñu noppi dañuy wax parce que gënuñu ñu ndey gënuñu ñu bàyyi te dinañ si ñëwaat dina gën a yaatu incha allahu rabbihi sàcc yi détourneurs yi ñoom ñëpp dañ leen war a sose yóbbu leen dóor leen tàpp leen ba dagg seen nu na nar a yeeg yu kenn xamut parce que nag trop c'est trop jumaa bi dafay jot dinañ si ñëwaat incha allahu rabbihi yal na yàlla defaral ñëpp jàmm yàlla na yàlla defaral ñëpp salaam lu ñu war a wax na lool. dinañ si ñëw état par étape Kalifone Sall ku ko xamul dégg nga ko ba yeboon nag ngeen jëlati vidéo yi daggati ko dugal ko seen góor WhatsApp yi di wax man awma seen temps encore une fois bu ngeen xoolee sama téléphone ma benn group WhatsApp amul kuy génnee groupe WhatsApp ne numéro Kalifone Sall la nii amul te du ma sa am awma temps bi lu ma bëgg a wax damay ñëw génn fii wax ko et mu jeex yàlla yàlla defaral ñëpp jàmm yàlla na yàlla defaral ñëpp salaam sàcc yi agresseurs yi dem leen ngeen libere président ngeen démissionner ngeen bàyyi ngeen dox seen dox ñun ñu continuer di liggéey pour un Sénégal meilleur sonal ngeen président mag sàll sonal ngeen soxnaam wax ji bëri na ci biir Sénégal sàcc sàcc sàcc sàcc détourné détourné détourné détourné këpp kees këpp kees këpp kees te jàppalewu leen benn ndaw jàppalewu leen ñi si base bi trop c'est trop gars yi wasalaam jumaa dafa jot ba beneen live incha allahu rabbi dinañ si ñëwaat jaa ngeen jëf jumaa mubarak à tout le monde ba beneen live incha allah